bi moo xewoon ne man ba mu dimanche bi mu ñëw moom la ñu ngi ñu la tey dañu ab lu abonné ñoroon ci fekke sax waaye dafa waxoon bu nekkoon na dina ak seen baay agsi na ñu ne woon nag dinañ ñu jaar wala def si njaboot mu ne nag doon béy bi ay tànkam ba lépp loo xam ne ñu ngi ko bëgg daal yàlla nañ ko ci jàppale loolu moo maire yi ñi nga xam ne nekk département bi di ko jàppale ñu ci bëri ànd nañ wala seen i ndaw ñëw ñu ànd ak moom ñoom ñëpp ñu ñëw ñu département Mbacké ngir ñu ànd ak moom li nga xam ne moom la ko waa soo ngir ñaan nag jërëjëf suñu tool bi nga xam ne moom bu dugub bi bàyyi moom bu dugub lépp ba lépp lépp li nga xam ne am nañ yaakaar ci moom président ko loolu yàlla mën ko siy dimbali ba ñu ko département Mbacké loolu daal mooy état bi. asalaamaaleykum. sëriñ bi moom mu ne waaw dañ ñu demande ñaanu xayma. dañ fàllu lu baax lu ne da ko fee jëndal. ba ji bi sax sàkkoor lu baax. ba nga xam ne xëy fàccil say aajo ba sa aajo faj yomb na. ndax doomi sëriñ bu baax yu baax yi ngay ñoom ñëpp sëriñ Fallou teewal na leen fii ci Ndindi. te ci yonent bi baax na sëriñ yi yëpp. jaam ñoo xam ne léeg-léeg soxla ba bett leen. su doon dañaa ko faj. te duñ ko faj. ñooñu ñu bëree bëri. day fajul xaj na seen soxla. xaj na fii seen soxla. moo tax nit ñi sax sax faral lu baax. moo tax ku fi ñëw dugg si dara lu baax ñu jëm ci jaar ñi danañ tam yaakaar bu baax a baax. ñun nag ay taal yu bëri ñu fi nekk yoo xam ne dañuy ñaan ci yàlla. ñu fay leen wër dina aaj am nañ ci yaakaar bu baax a baax. dafa am ku baax koo xam ne kii dafa mos a jëflante ak waa waa benn waa Aywa. waaye wax ji mu tàmm ci lool ba jotee fa fab loxoom pes gi mu doon wax gi mu doon wax pes gi mu doon wax te muy waaj baax ba mu noppee rek ba mu noppee rek loxo ba tàmbali di waaj di sumbi di waaj waaj ji waaye sama loxo bi ñu ko def moom bu ñu ko defuma ko de yàlla moo bind ndax yoo xam ne bokkuñ bind loolu te man kay bu doon man rek bala nga maa dóor damay fexe ba dóor ma dóor waaye bu ma bàyyi ba sama def tàng ba pare mooy wàccee sa loxo loolu wàccee ci sa loxo jëriñu ma dara moo tax mu ne nañu nit yi di fi nekk ku ko bëgg te mel nii ngeen mel jàng baax ak yar ak teggin te ku ko fuuti di ko fuuti am ngeen wax te loo xam ne ñun sax duñ ci ñaan dara duñ ci yëg dara jëm yàlla ay fan rek moo na ko sëñ bi nga demee bu yaa ngi waxoon jàmm bi ñu dajaloon fekk islam bi kenn la di ñu ma ñaan loo ñu leen di